dama kontaan parce que xam nga ta nekk ak population yi ñuy waxtaan ci lu am solo ci euh, avenir u ICS population yi jox ñu ay xel yu am importance parce que gis naa ni population yi xam nañ ni industrie di di doxee ñoom jox nañu ay xalaat yu am solo yoo xam ne dañ ko boole ci projet bi ci euh, liñ fi wax yëpp muy affaire ndox mi muy affaire liggéey beeg. ak euh, ndimbal bi ñu war dimbale jigéen ñi xale yi dañ ko boole ci projet bi incha allah. document bi approuvé euh, non euh, document bi niñ ko approuvé kontaan naa ci lool maa ngi gërëm population yi di gërëm état bi parce que xam nga état bi toujours day jàppale ICS. ak maire dëkk bi ak ñëpp ñi nga xam ne en tout cas ñoom ñooy encadrer entreprise bi parce que entreprise bi waa gox bi ñoo ko moom d'abord. lu non xam nga entreprise bi suñ defee projet boobu muy def 33 mégawatts dana amal njëriñ ICS ICS doot dana dana mën a dem ak boppam ci affaire courant wante nun dañuy am toujours relation avec Senelec parce que waa Senelec suñu xarit lañu suñu partenaire lañu euh, donc dana amal njariñ ICS amal njëriñ Senelec amal njëriñ réew mi voilà